aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokk yi nga xam ne yéen ñuy seetaan ci asfiyahi point org ñi ngi ñëw ak ci benn reportage boo xam ne ñu ngi koy defal Cheikh El Hadj Abdoul Aziz Dabakh mi nga xam ne génn na àdduna 1997 dajeeg le 14 septembre ñu koy ñuy màggal bis boobu di ko fàttaliku nag muy le 14 septembre 2014 mu am tey fukki at ak juróom-ñaar 17 ans ñu bëgg koo fàttaliku bu ñu koy fàttaliku nag booy euh, fàttaliku nit da ngay seet ñi nga xam ñi nga xam ne xam nañ ko dund ak ñoom tabaarakallaahu ñu waxtaanal la ci waa laaj nga laaj leen kan mooy Cheikh El Hadj Abdoul Aziz Dabakh moo tax tey ñu ñëw ci ko xam ne yaakaar nañu ko ko xam la ndax jaboot la ci kër gi yéen ñëpp ngeen xam ko muy Pape Youssoufa Diop tabaarakallaa ñu fekk ko fii tey ci Liberté 6 fas yéene waxtaan ak moom mu xamal ñu kan mooy Cheikh El Hadj Abdoul Aziz kon xam naa duñu def lu rek dugg ci biir incha allahu taala nuyonteeg moom euh, ziar ko laaj ko kan mooy Cheikh El Hadj Abdoul Aziz Dabakh للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما mbokk yi jàkkaarloo ñun ci asfiyahi point org comme ni leen ko waxee léegi ñu ngi waxtaanee góor gu mag nga xam ne Sénégal du ko fàtte muy Cheikh El Hadj Abdoul Aziz Dabakh mi nga xam ne wan nañu gannaaw Euh, le 14 septembre 1997 tey di le 14 septembre 2014 fukki at ak juróom-ñaar 17 ans yoo xam ne duñ deñ di ko fàttaliku ni ñu leen ko waxee woon léegi koy fàttaliku nag da ngay dem ci ña nga xam ne ñoo ko xam dëgg-dëgg xam nga laaj leen kenn mooy kooku waaye bu ñuy laajte kenn mooy seexal Al Hadj Abdoul Aziz Dabakh ñëw si borom xam borom cër di seet si Cheikh Al kooku yaakaar naa bu ko laajee kan mooy Cheikh Al Hadj Abdoul Aziz war nañ ci mën a am xam-xam tey na ñu ñëwoon seet si. alxaaji Pape Youssoupha Diop ibnu alxaaji Moustapha Diop nga xam ne alxaaji Moustapha Diop euh, soxna Asiyetu si alxaaji Malick moom moo ko moo mooy moo moo ko meññ kon nga xam ne sët la direct ci alxaaji Malick moom nag ku ko xam la ndax mi ngi yaroo Tiwaawan mi ngi ja ci wàllu njàngam mi ngi jàngee ci daara ju mag yooyu université mag boobu nekk Tiwaawan diggante Tiwaawan la ak Jaxsaaw ak Fass te diggante yooyu yëpp foo ci wax foo ci tudd da nga am da nga am loo ci fàttaliku ci Alxaaji Ablaas Dabaax kon yaakaar na ki ma waxtaane ku ma xam la eh, def na tamit bi bilaad dem na bitim réew Maroc ak Algérie gën a yokkaat alioom nga xam ne kon xam-xam rek ko ñor gëstu rek ko kon dañ def lu dul nuyu ko eh, eh, Pape Moussa Pape Youssouf tabarakallahu ñu ngi lay nuyu di la ziyaar la asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu Serigne Babacar Niang yaag bokk yi nga àndal di wax baada bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin الجامع المعطي النافع ذي الفضل والكرم الواسع ونصلي ونسلم على الفاتح الخاتم xayri lanaasim sayidina muhammadin wa ala alihi wa asxaabihi wa xulafaaihi ridwanullahi taala alayhim ajmain kon gannaaw julli tudd yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu leen di dalal jàmm sëñ Babacar comme ni ñu ko waxee léegi fas yéene xuus ci jéem ci li ngeen ñu sant fa tabarakallahu eh, wax nga ni ku koy xam ku xam ki ñuy waaj waxtaane la waaye xam naa xam jëmm la joo xam ni xam ko yombul waaye liñ ci xam a néew rek ñu jéem cee jaar ak jaam yàlla yi wala liñ ci xam ci li ñu xamas néew ci moom ñu jéem cee jaar ak jaam yàlla yi. tabarakallah euh, kon euh, suñu question bu njëkk rek mooy comme ni ñu ko waxee ci commencement bi 14 euh, septembre 97 ak 14 septembre 2014 fukki at la ak juróom-ñaar waaye fukki at ak juróom-ñaar yi ba léegi Cheikh El Hadj Abdoul du dañ di nekk ci xol yi du dañ di nekk ci xel yi. koo tuddal Mame Dabakh rek mu mel ni démb la fi jógee lan moo tax ba léegi senegal mënuñoo fàtte Cheikh El Hadj Abdou Aziz Dabakh waaw tontu laaj boobu de mën nañ ko delloo ci kaddu goo xam ni ñu ngi ko taataane woon ci suñu wayjur di xalifab Cheikh El Hadj Abdou Aziz radiyallahu anhu di sëriñ Maodo Sy dégg naa mu wax gannaaw demuk baayam gannaaw bi mu seetloo ni nit ñi ittewoo sëñ Abdou gannaawam ñu man daal seet naa ba seet yëg naa ni Cheikh Al Hadj Abdou Aziz suuluñu ko ci suuf ñu ngi ko suul ci xoli jaam ñi nit nag ku ñu suul ci xolam mënatula a moom kon amatul posé bu muy mën a am ci fàtteku te fàttali ku am solo ndax lii fa tabaarakallaahu ahsanul xaaliqiin solo si yàllaa ko njëkk a wax ni fàttaliku leen ku mel nii yàlla dafay wax ci alquraanul karim fi suurati yuusuf baada audu billahi min alsheytaani alrajim laqad kaana fi qasasihim ibratun li ulil albaab maa kaana xadiisan yuftara walakin tasdiq alladi bayna yaday wax ci axiru suratu hud ni wa kullan naqusu alayka min anbaai rusul ma nuthabitu bihi fuaadak loolu ay tegtal la yu jóge ci alquran karim yooyu wane solo yi seen itte ji ngeen am yéen waa asfiya yi te yàgg koo am nag ñu ngi koy saluer bu baax a baax nag bari na koo xamante ni bii bari na looy xam tey ci kër Seydi El xaj Malick radiyallahu anhu da ngay def asfiyahi point org daal di ca sori yàlla neen ci yàlla dolli dimbali liggéey bu rëy la boo xamante ni bii àdduna yëpp seede nañ ñu bokk ca ña koy seede fa tabaarakallah ahsanul xaaliqiin yàlla yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na inda dikri saalihiina tatanazzalu arrahamaat kon koo xamante ni bii fàttaliku ko fàttaliku ko dina fàttali nit ñi ni leen mbooleem santaane yàlla yi yi ngeen fekk ci téere yi ñu bind ko muy ay théorie nañu yëg ni du ay légende du théorie yoo xamante ni bi ci téere la war a des waaye amoon na ay jëmm yu fi jaaroon yu ko doon jëmmal ma nga tàmbalee ci sayyiduna muhammadin sallallahu alayhi wa sallam sittuna Aïcha ni boo leen di seet sayyiduna muhammadin sallallahu alayhi wa sallam kaana quraanan yamshi ala al-ard yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na sittuna Aïcha nee na alquran ju doon dox la ci kaw suuf mooy maanaam alquran théorie la waaye yonent bi da ko doon dund ak nit ñi loolu ci boppam ku fi wuutu yonent bi wal ulamaau warasatul anbiya wa min warasatihim xaqiqatan ci ñu dund ak moom Seydina Alxaaji Abdul Aziz radiyallahu mi nga xamante ni bii daraam mosula wuuteeg loo xamante jaar jaar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam noonu nga xamante ni bi noonu la ko doonee ci baayam Seydi Alxaaji Malik radiyallahu anhu ak magam yi nga xamante ni bi ñoom la fi wutu woon ni kon loolu moo jege googu nga xamante ni bi moom la jege jaamu yàlla yi ñu suul ko ci seen xol moo tax jaamu yàlla yi duñ ko fàtte jamono ju ñu toll rek ñu nekk di ko fàttaliku ngir xam ni fàttaliwaale ko seeni doom ak seeni njaboot di yëg ni am na ko fi jaaroon koo xamante ni bi mbooleem te kat loolu mënoon naa xew ci jamono yonent ba sa alayhi wa ñu ni jamono yi soppeeku comme jamono soppeeku na nag loola kenn mënatu la def la sëñ Abdou ñëw yeesalaat ko wane ni lu mën a def la ndekete yoo yëf yi moom bëreeg sa bakkan la ba daan ko pour mën a jaar fi yàlla bëgg ndax yàlla séntaaneem yi bu fekkoon ni dafa am jamono joo xamante ni mën nañ ko appliquer ak jamono joo xamante ni mënuñu ko woon kon dina ci dugal ay taadilaat muy ay coppat ci ay ay soppeeku yoo xam danaan jamono soppeeku na kon nañ ko defee nii waaye ba yàlla soppiwul ci nga xam ni nit ñay soppeeku waaye ndigal yàlla yi moom masula soppeeku bu nit ñi jéemee mel na nga xamante ni bii al jiilu al awal bi nga xamante ni moo commencé woon ca yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba tollu fii incha allahu taala yàlla dina leen dimbali ci jéem ci kat ci ci eh, jëfandikoo wala wéyal ndigal yi nga xamante ni moom la leen yàlla gàlloon jéem a moytu tere yi nga xamante ni moom la leen yàlla tere kon nag sëñ Abdou loolu la doon dund ak ñoom jege nit ñi bëgg leen sopp leen témoigner ko nag témoigner loolu ci ay mawaqif yu bari ay jataay ay jamono ci lu bari parce nit nit xamul lu dul ku ko def ni boppam nit kenn moomu ko boo ko defee ni boppam yaa ko moom as gor mënoo ko moom ci looy def ci poosam waaye yonent bi sallallahu alayhi wasallam li mu jàngale mooy ab jullit dëgg dëgg dëgg ka mën a fees xolam mooy ka nga xamante ni bi moo tàllal xar kanamam ci moom waaye loo man man biir waaye mu def ca loo yëgul sëñ Abdu ku tàllaloon kanamam la kanam goo xamante ni bii boo ko gisee la ca nekk ci ak mbégte ak la koy nekk ci ak ubbeeku la la xol ba ëmb la loo gis kanam di ko wane rek adresse la nekk ci xolu jàmb la Cheikh El ab Abdoulaye nag kon ni nga ko waxee ci xolam boobu la ëmboon jaam ñëpp sopp leen ni nga xamante ni bi noonu la ko yàlla santaane jaare ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni innama yàlla ni innamal muminuuna ixwa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne laa yuminu ahadukum xatta yuhibba li axihi al mumini maa yuhibbu li nafsi loolu nit ñi dund koog moom moo tax mën nañu ko fàtte قوم إنكم لستم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا